Mm. oustaz euh, accident yi de bari na. waaw ah, moom am na sax oto bu tàkk. waaw gis naa ko 16 morts. Euh, te te ba biig am na sama mbokk yoo xamante ni. xombal la ñu fanaan. Mm-hmm. ndax dañoo ñëw ba yéeg à péage bi minuit jot. Mm-hmm. police bi arrêté ne nii minuit dafa jot. ah waaw leen fee ba bës set ndax dogal la boo xamante ni soo Faye da koo jëloon. te ministre bii di El Malick Ndiaye ba léegi waxagu ci dara. fa lañ fanaan sa yooya. di dàq ba bët set ñu bàyyi leen ñu dem te téewut accident yi gën a bari est-ce que kon loola solution la waaw man day gis naa ne transport bi moom hmm. dafa laaj ndëpp national bu rëy rëy rëy rëy hmm. kooku moom xaw ma kan waaye El Malick am na hmm. problème bu rëy rëy ndax gis nga sa ñaasaan ah. transport bi dafa sérieux nag dafa am loo xam ne ci transporteur yi la am yoo xam ne ci chauffeur yi la am yoo xam ne ci nguur gi la am yoo xam ne ci takk der yi la yi nga xam ne transporteur yi la mooy oto yi ñuy indi di déformer oto yi di yokk ban yi mm-hmm. ba kenn du toog toog bu normal mm-hmm. oto bu war a def dix places ñu mm-hmm. modifier ko def ko vingt cinq places c'est-à-dire loolu ngir yow bëgg xaalis tax na confort bi nit ki waroon a am nga yàqal ko ko loolu dama jàpp ne état bi daf ci war a teg baaraam xoos ko. Mhm. bi ci des mooy di indi ay xëntu oto yoo xam ne biir na la ne oto bi fii ak ñaari at waratu la daw ci réew mi. Mhm. nga indi oto boo bàyyi ko fi muy daw 10 ans oto boo xam ne bu safee bagage ba pare day dëng. waaw dañuy dëng de. waaw kooku bu jotee ci virage. ak dëngaloom boobu ah. xool virage bu ndaw mu dem yoonam. jàpp naa ne xeeti oto yooyu transporteurs yi di jël ngir bugg lu yomb. Mhm. ak noonu ñuy modifier oto yi. lu état bi war a ak li ñuy fay si. ak li ñuy chauffeur chauffeur chauffeur yi nga xam ne dañ ciy safaat ay bagages. ak xam ne du ñu responsable. Mm-hmm. chauffeur boo xam ne saawaay daanaka buy jóg day mel ni kuy saraxe bakkanam bi. mbub mu baax sax du ko sol. tox mi la ci set ak kilo tak lu mu jot teg ci yaram ak tox mi ah. na acca saa waay ñu dem taalub cigarette <laughs> xam nga manque manque de respect mi ngi yem toog ci biiram oto di dawal di xëccub cigarette di tux si. Mm. te koo na ci fayal ci cigarette bi mu yóbbu la laaxira. saa à man jàpp naa ne chauffeur yi wàllu woowu bu ñuy dawal. seen yoon ci gëmmentu nañu gëmmentu wuñu sonn nañu sonnuñu xaalis bi ñu ci amee doy na eh, loolu état bi war na jël ay matukaayam yu jërëjër bi ci des mooy tali yi tali waaw vraiment tali yi tamit dafa xat trop sew lool waaw tali 7 mètres léeg-léeg boo dee doublé jàkkaarloo ñaari bis yu jàkkaarloo war faa ñëw mm-hmm. mun ta nekk moo tax tali yi tamit foog ñu yaatalaat mm-hmm. beneen bi ci des mooy takk der yi ne ci yoon wi mm-hmm. ñu xooloo leen oto bu warul daw nga ñëw constaté oto bi xam ne warul daw wala waa ji dawal permis bi baaxul wala waa ji dawal amul assurance oto bi signalé ginnaaw yi du tàkk voilà ku topp si ginnaaw doo ko bi da ngay daw guddi ba yàgg nga yaay yaay tànn rek xool ne am na lu nekk sa kanam li ñuul jox la benn 1000 francs benn 2000 francs nga bàyyi ko mu mu xuus mbëkk benn oto ñaari bakkan dee ci 2000 francs ndax jar na ko te ñoom sax 2000 bari na ci ñoom ay 500 mille francs jox hmm. ndax bakkan boobu dee am nga ci responsabilité bu rëy hmm. beneen bi ci des nag wàllu tali yi la loolu mhm. moom leneen la mooy tali yi daa am ñun ko bokkal de asa ndëpp gi dafa am zone yoo xam ne mhm. wax dëgg yàlla ay jàmbur fa dëkk ay jàmbur yuy jéggi waaw gis nga tali bi ah. tali yi am na ci zone yoo xam ne ay jinne cay nekk gis nga chauffeur yi mag yi ko xam mhm. dañ la daan wax ne boo dawee barab sàngam ba barab sàngam teggil sa tànk ah. nga daw ndànk ndax dañ daan xam barab bu nekk ya fa dëkk ba doo fa dawee foncé am na nu muy demee rek nga am lanteeg jaamu yàlla yooyu c'est-à-dire ñun am na ñu nu dëkkal ñu nu dul gis te ñu ngi ci àll bi ñu ngi fépp dañuy xotti tali yi dañuy ñëw di xotti rek di dem seen yoon ah, te ñu ngi jaabanteeg ñëpp di dem ak a ñëw yooyu ci yoon yi loolu na xëy na chauffeur mënu ci lu bari xam ko ah day am de ah tali bi moom rax nay jinne Mm-hmm. waaye li ëpp nag jàpp naa ne quatre-vingt pour cent responsabilité chauffeur yi. transporteurs yi pneu yi toj yi voilà ak pneu bu jeex tàkk nga wax sa borom oto bi ne ko saaseel ma pneu yi mun na fan yi fan yi ba ba am. ak yi ñuy déglu xibaar yi. waaw ak euh, apprenti yi. waaw apprenti moom xam naa du déglu journal. moom seen yoon man moom chauffeur laay waxal mais apprenti moom xam naa ne. apprenti yi ñoo bon dama yaa xaar ma ban ci osé ba mu ëpp mais daal xam naa ne. Hmm. buñ doon déglu lii dee ni muy tool man jàpp naa danañ teggi seen ndax ñoom ñoom seen bopp ñooy statique si dee. <laughs> ñoom chauffeur yeeg am paan ñooy statique. mais nag ah en tout cas jar na jël ay matukaay de. Hmm. Hmm. te chauffeur saa ngi def benn lobby nii taxaw na kenn du leen laal. kenn du leen laal fulaak fayda ju mat <laughs> sëkk. képp moo ci mën dara am na mesure yoo xam ne bu ko état bi di jël. Ah. na ko jël ak fermeté te bañ cee dellu ginnaaw gaa leen tooñ nag. waaye lu ci jël na fermeté bi ci des man taxawal oto yi minuit gisuma ko. minuit waaw gisuma ko. Hmm. gisuma ñu ne bon transporteur bu daw hmm. ba minuit na nga taxaw bu cinq heures yow imaginal chauffeur bi daw ba Bambey nga arrêté ko ci APH bi. mu fanaan minuit nga ne ko fanaana mu toog yooyu di ko matt. Hmm. muy faxas leen dem leen ñoom ñëpp. nelawul ba fajar ñu saloo tali bi accéléré. ba pare gëmmentu waaw duñ nelaw. waaw moo tax man mesure boobu accéléré man mesure boobu gisuma ne baax. moo tax accident yëpp heure 6 heures boobu. ñu leen bàyyi heure boobu heure nga ngelaw su neex si. heure boobu lay upp bu lay upp rek nga nelaw <laughs> te oto li tax mu soof booy nelaw doo gëmm dangay ngay xoolee ndeke dem nga bu yàgg da <laughs> jékki saa rek oto bi es nga dóor a yëg ne <laughs> dem nga néew na chauffeur buy nelaw gëmm da xool nii fekk gisoo dara. yaa ngi ni xëj ci bi te. <laughs> def nii te nelaw nga bu yàgg. ndeke dem nga dem nga booy nelaw doo ko yëg parce que doo gëmm. waaw ah, nga dëgg de. mais xool bee nelaw moo tax arrêté bi ñu arrêté minuit man dama jàpp ni. mën soo fay mm-hmm. l'essentiel nañu fexe ba daw bi nañuy daw ndànk. na mm-hmm. station yu bëri. Mm-hmm. na am policier yu nekk ci tali bi xool vétérinaires yi ñuy yëpp ñu koy ne waaw. ñu yëg heure boo dawee ba nangam nga taxaw. sëñ bi Dakar dem dikk yi def nañu màggal Tuubaa gi. waaw va yu dul jeex. dem ci régions yi juróomi junniy nit. Ah. benn accident amu ci. déggoo parce que dañ régler ñi ciy nekk ak ni ñuy dawee. Ah, dañuy nelaw ba doyal. te bu kii demee bu ñëwee kii ñëw. kii ñëwaat ñu teg leen loolu moo normal. gis nga transporteur yi. nañ leen wax ñu jël ay chauffeurs yu doy. Mhm. jël ñaari chauffeur. biy daw bëccëg biy daw guddi. waaye ah. jël benn chauffeur. Mm. di ko fay benn cent mille francs wala deux cent mille francs muy daw vingt quatre heures sur vingt quatre Kaolack ñëwaat toog tuuti war a demaat Kaolack. wala Kaolack Mbour fu ne nga mm, def va et boo paree ci bi ngay tëdd nii. Mm. bu ñu la bëriin nga jóg. Ah. taal oto bi départ. mu leer na la sa yaram noppaluwul. noppaluwul man jàpp naa ne ndëpp national lañ war a def ci. transport bi eh, te laaj na ay mesures yu. Mhm. yu metti na mhm. yoo xam ne moom. chauffeur yi duñ ci kontaan waaye pexe amul. am na solo. Mhm. imam de xam naa dese nañ fi ñetti point yoo xamante ne war nañ koo xam mooy tract bi yemal ak bi ak. assemblée nationale bi ak euh, mbirum Cheikh Omar Diagne. ak fa mujje léegi dañuy dem si tract bi yemal ak. mooy ñi nga xamante ni dénkoon nañ leen ay poste mhm. doon leen liggéeyloo mhm. léegi nag Ousmane Sonko dafa génn def déclaration premier ministre mhm. daane daal wax nañu ñii nekk ci aéroport bi bu kenn demati bañ saytu leen ba pare léegi nag ñi jot dem sax téye nañ leen nee dëpp leen nee na ña tamit buñ def bu fekkee ni yoon soxna na leen buñ def effort bu ne pour ñu ñëwaat ci réew mi ñu saytu liñ leen dénkoon bu dee alal la bu dee jëf joo jëf la ñu teg la ci yoon loolu noo gisee d'accord ci lool ah sëñ bi compte rendu bi dafa war a am. Hmm? sëñ bi mënun laa dénk ay milliards. Hmm. ay at nga téye milliards yooyu ñu lay duut baaraam. naan laal na ko laalu ko laal na ko laalu ko laal na ko nga naan laalu ma ko ba nga jeexal. Hmm. ñu ne kenn du ko xool <laughs> cest à man dama jàpp ne sax waa Bennoo. su amul woon compte yi bu ñu leen woo ne leen kaay leen ñu saytu ko ñoom seen bopp ñoo war a wax ne. kaay leen saytu ñu li ngeen ñu doon tuumaal. ba ñu xam ne ñun dañoo set waaye mënoo tii ndab ñu jiiñ lak càcc. fukki at ak ñaar nga jeexal rek ne fes daw loolu daa mel da ngaa bëgg a dëggal ki la ko wax man dama jàpp ne ñoom lii ñu leen di woo pour ñu ñëw ñu auditer leen bon audit yi sax am na ba pare pour ñu dem ci yoon ñu déglu leen ne leen rapport yi lu ngeen ci am loolu farata la maanaam gis nga askan wi ceeb ak diw yi nu wàññi nii baax na torop ñi ngi ko doon xaar waaye li askan wi gënoon a xaar hmm. mooy ñi téye woon seen alal nan lañ ko téye woon moo tax ma jàpp ne dafa xaw yéex même bu dee mën nañ ko comprendre ni situation bi demee mais jàpp naa ne compte rendu yi moom fokk ci mu am parce que dañoo yoroon ay milliards. Hmm. milliards yooyu ay rapport di génn suba ak ngoon guddeeg bëccëg naan diw épinglé nañ ko diw épinglé nañ ko ba ci rapportu Covid ñu di leen épinglé. Hmm. waaw sëñ bi kooku mën ngaa wàcc jeex après ñu ne France dem leen après ku kum neex nga tukki. Hmm. nañ bàyyi seen caaxaan gis naa ñuy victimiser wu naan damaa dem aéroport ñu may téye ci ay dut kenn waru ci génn réew mi. te réglé wuñ problème li nga géré woon ba pare. loolu mooy dëkk mais bëgg a tukki dem ñëwaat bu ñu leen soxlaa ñu ñëw. ku ci dem gëw mën a di nga xam nañ li leen di xaar si Yasane am na ci loo xam ne buñ la ko waxul woon yaa koy xaar man de su ma duggoon fii di def émission nii. ñu pare ma bëgg a dem. nga ne a ah, man de sama téléphone sàcc nañ ko. billaay du ma génn fii te seetuñu ko ba pare. Hmm. a ah, maag yow ñoo fi nekk. nga jóg ne sa téléphone gisoo ko man ma waaxul <laughs> di ma ko def damay taxaw sëñ Assane nañ xool téléphone bi ba pare li wér mooy man boo ma xoolul maay njëkk fuyate sama bopp moom. walla ne la maa ngi nii man de lii laa a tegal nii. <laughs> mën la dara dara a la ko jéem a la ko. <laughs> waaye comme tudd na ko rek. moo tax dama jàpp ne règlement bii moom. mënut mhm. euh, euh, a ñàkk. mais nag nee nañ ñoom Ousmane Sonko dafa génn di leen xoqata ak di leen napp Cheikh Omar Anne rek ne bu xëyee tey euh, auto centre bi ñoo nekk buntu këram xamuñu lu ñu fay def. <laughs> loolu nappaate la loo xamante Ah, dinaa gudd tànk ah. <laughs> loolu moom dama jàpp ne waa bennoo dañ ko dañoo waroon a rus a wax ne ñu ngi leen di napp Assane Assane Abdoulaye Seydou Sow <laughs> laa gis muy wax niñ ko arrêté tere ko mu génn tege fan Abdoulaye Seydou Sow ay weer ci ginnaaw ah. moo doon tere ku dugg café Abdoulaye Seydou Sow opposition bi di ñëw di dugg si Kaffrine ñoom Sonko yi mu ne leen fii Kaffrine kenn du fi teg sa tànk ci ban titre doo juge doo gendarmerie doo police doo lenn ab politicien nga comme ñoom nga tere leen dëkk bi ne kenn du fi dugg waaw yàlla def quelque temps sa nguur gi daal ñu ne la doo génne Sénégal ngay wax looy wax. ah waaw ginnaaw daa nga tere dëkk rek ñu tere na. Serigne man daal dama jàpp ne ku nekk war na ñaxtu. Hmm. ba mu des waa Bennoo. Hmm. Assane fii réew mi. Hmm. lu ne dung nañ nee nañ décision de justice amu fi lu tax ñuy téye nit ñi nan du ngeen dem ma gis ko bind naan ah jurisprudence parce que bi ngeen fi barricade sa waay nit ñi naan amul décision décision ngeen ni décision administrative la. wallaay wallaay lu ne ngeen dugg ci. c'est-à-dire loolu moo tax gis nga nguur boo ko yoree. lépp looy def na ko teg ci dëgg. man d'accord uma sax ñuy wax ne yërmande yërmande ba wàcc dëgg déedéet. tegeel ci dëgg rek. gis nga li ngay def mu neex mu naqari na tege ci ak dëgg. wallahi bu tegee ci dëgg doo ko réccu mukk. sëñ bi am na ñu nekkoon ci nguuru Macky Sall man gëm naa ne tiituñu. am na ñoo xam ne poste yenu yoroon. ña nga doon jubal. waaye am na ñoo xam ne ba fii ñu nekk du ñu nelaw parce que xam nañu ne bis bu audit yi ubbee. bu ñu leen woowee du baax ci ñoom. sëriñ bi Sénégal moom ni ko géré woon ci wàllu droit ku nekk war naa ñaxtu naan ñi ngi ñuy woo. ba mu des ñoom 2012 ñun fii la ñu fekk Ousmane Ngom ministre de l' la woon. ci hôtel lañ ko fekk dajj ko. waaw lem bu xët yenu yóbbu sëriñ bi yow lii yëpp boo fa jaaree ak nit Karim Wade wóolu ko bitim réew mu ñëw. mu ñëw ñu ne ko coppi dugal rëbës teg ko fa ñetti atu yàlla di traqué nag ñi ci des waaw sëñ bi fii nag boo fa jaaree bu ñu fay jaar ak yow da ngay muñ rek hmm. wax dëgg yàlla man bu doon man du ma jooy foog ku ma muñ ak lu metti metti parce que maa ko leble woon su ngeen ma càmbaree nag ñu àtte ma ba ma yëg ne seet naa wecc hmm. su ma neexee ma tukki fu ma neex mais man li ma gëm mooy régime bi woon moom kenn waru ci génn réew mi te defuñu compte yi ba pare hmm. ba ñu xam yow def nga wala defoo ku deful nañ ko bàyyi mu dem yoonam waaye ku def na gox. ku def na gox. loolu du xupaate de man pour man loolu moo. normal waaw ci wàllum yoon woowu. Mhm. si la ñu nekk ku demee ni Idrissa Seck dafa am doom bu góor. Mhm. doom bi takk der jàpp ko. waaw ni dañ ko fekk ak li ñuy tere. waaw awale ko fi ñu ko war a awale bu dugal ko si kaso bi daal ñu bàyyi ko mu dem te amuñu demande explication. Ah, gaa yi xamul yomb na de gaa yi daal ku demee ni Ousmane Tounkara a nga sa bitim réew. Mhm. nee na daa bëgg ñu leeralal ko bàyyi yëpp. doomu Idriss Seck gi lan moo nekk ci biir ndax it ay am na ñoo xam ne ña nga fa ay laxas yàmba wala tuuti lañ leen fekk wala nanga mais kii nee nañ li ñu ko fekkee dafa bari te daal bàyyi nañ ko mu dem daal jaaxal na maam ub na bopp Sénégal te léegi ba léegi communiqué guñ si kenn waxu ci kenn def si benn texte daal jaaxal na leen daal yow waaw moom day duma ma ko weddi parce que dafa yomb ci Sénégal ñaar ñii mhm. milliardaire ak doomu milliardaire duñ fi tëdd kaso loolu moom lu ma yàgg yaakaar na jóge na fi waaw léegi dañ ne moom ce que biñ koy bàyyi peut-être wu nañ bàyyil xel ne mën nga yore nguur ba pare. Hmm. te ñu yore justice bi nekk ña ko yoroon ba léegi rek. Hmm. parce que justice bi ñin ci changé bi ñu leen changé yàggul de. Ah, loolu yëpp mën na ci am mais bu dee ñu bees ñee ko defit hmm. musiba am na man moo tax gis nga li ñuy wax ne président de la république mu génne loxoom ci justice bi ba mu set wicc. am naa ci tuuti dut d'accord ma mu leen di manipuler waaye am na juge yoo xam ne. ku leen bàyyeeg seen bopp. Ah, waaw waaw waaw. yi jënd leen. ñaar rek mën a am président teg ci ñoom loxo wala milliardaires yi teg ci ñoom loxo. kon na président teg ci moo tane au que hmm. milliardaire bi sëriñ bi di hmm. ko loolu day hmm. jiggi dayoo day bu ko defee quelque temps daf fiy jóge keneen ñëw te milliardaire a dund moo tax ma jàpp ne bépp justice boo xam ne indil nañ la doomu borom alal. wala ñu indil la borom alal. mu influencé la ba tax ne ñemewoo ko teg li yoon wax. na la leer na daajal banqaar safara safara nga jëm de. sallallahu alayhi wa sallam ma ko wax de nee na àttekat yi ñett lañu. ñaar ñi safara la ñu jëm kenn ki dong ngay dem aljana te mooy ki xam dëgg gi àtt dëgg waaye nee na ki xam dëgg. ba pare mooy dëgg gi safara la jëm. nee na ki maîtriser wul dossier bi ba pare àtte dossier bi safara la jëm mm-hmm. moo tax man jàpp naa ne doomu milliardaire fii ci réew mi ak milliardaire ci boppam pour ñu téye leen ci kaso problème la ci Sénégal loolu nag jàpp naa ne dañ ko war a jàmbar man loolu Ousmane Tounkara wax d'accord naa ci bu baax a baax a baax mm-hmm. ah, loolu de la wax mais est-ce ah. foofoot euh, waruñu see gën kii ndax xóotal ndax daal mbir moomu mm. est-ce que là ce que ñi jàppoon waa ji ñi ngi fi ba léegi maam ñi jàppoon waa ji ba ne lii lañ ko fekk encre ko ba defeere ko maam ba jox ko procureur ñu bàyyi ko est-ce que ñoo ñëw kon mënuñu leen a seen liggéey da desul daal ndax it nit ki noo koy jàppe mm. awale ko fi nga ko war a ba am ay sa dossier dem jébbal procureur ñu xool ko bàyyi ko sa nga ne fekk nga ko nangam yow fekk nga ko lu bari loo xamante ni ëpp na jàpp nga ko jàpp nga si ay nit mm-hmm. ñu ni bàyyi nañ ko noonu euh, est-ce que loolu xawut a kii ñu ko jàpp wala ñu ko jàppoon ñoo juumoon wala. wallaay ñi ko jàpp juumuñu ña ko bàyyee juum. sëñ Assane man mm. toog naag benn commissaire. ak ay imam yu bëri. mu doon waxtaan ak ñun ci pour ñu conscientiser ndaw ñi ci ni ñuy jëfandikoo mm. yàmbaaj ak drogue bi. wallaay mu ne xam nga li ko jaaxal mu ne weer laa fi def. déposé naa fi lu mat cent quinze personnes. ñoo xam ne ci yàmbaaji la waaw cent quinze personnes ci ñetti weer. ci benn gox. mu ne mais li ma jaaxal du loolu. li ma jaaxal mooy ñi ma yóbbu woon nga xam ne au moins waroon naa toog cinq ans du ma leen gisaat ñooñu laay jàppaat. waaw ah, c'est-à-dire kon moom doo leen raw jeex na bu leen jàppee ba déposé leen ca kaw kilifa ya ca kaw am na ñu fay jaar am na ñoo xam ne boo jàppee seen doom fii ci police bi duñ fa jaar. Hmm. dañ lay bàyyi nga jàllale ko. bàyyi ba moom egg waaw ñoom ca kaw lañ koy regle fekk na nit mu tëdd nii ci kaso ñu fëgg ko diw mu naa ah, ñu ne ko jógal nga jël sa saak nga ñibbi. Ah, kenn attewu ko xamul xam nga loolu du problème mu police dëgg la nag PV yi gaa yi di defar souvent PV yi day am problème. waaw ah, dana waaye man dama jàpp ne PV ci kanamu juge bi la war a leeree bu ñëwee ba ñuy àttee ñu indi éléments yi ñu yëg ne PV yi am na ci yu faux waaye ku ñu mandat dépôt àttee guñu ko. Hmm. enquête bi di daw ci diggante bi ñu bàyyi la nga dem. Hmm. man jàpp naa ne loolu moom lu ñu war a ah, seetal. boo demee ba taxaw dama nañ laa bàyyi comme Sidi Diop. mën nañ laa corriger bàyyi la nga dem. waaw kooku sax infraction bi mu defoon. Mm-hmm. bokkul ak sax ay jaay drogue ak jaay yamba ay rey nit. Mm-hmm. kooku moom xëy na erreur la def mooy yorul bi mm-hmm. mën na am nag moo ko tey parce que xam nga. artiste Sénégal da ko amul nee na amoon na waaye daa réer ko sàcc. Euh, xam nga artiste Sénégal yi daf ci am ñoo xam ne dañoo fuy parce que ñoom dañuy dem ba teg seen bopp foo xam ne. Ah. jàpp nañ ne ñoom beneen nit lañ daal. waaw bokkuñ si waaw li tënk nit ñi tënku leen. ñoom ak lu mën a xew foo leen fekk bàyyi leen fa moo tax man jàpp naa yar bi. Mm-hmm. Euh, baax na ci ah. baax na ci waaw jot naa ñam tuuti kaso te dégg naa mm-hmm. alamaan nañ ko. waaw mais alamaan bi daa xaw a tuuti nag. alamaan bi daa tuuti 200000 xaw gis naa ko sànq mu dugg si oto mais dañ koy dawal léegi léegi mi ngi toog si. ah moo gën ah moo gën wut na sëfoor. kon yar bi baax na. waaw baax na si. <laughs> baax na ci artiste la warul tax lu neex def. Ah. justice moom ci li ñu war a xoolaat la bokk. li ñu war a xoolaat la bokk